رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله سيدي بلول ويسو président Macky Sall mi ngi leen di wax ne liggéey yi ñu sumb ci Medina Baye sumb ko ci Kaolack fas na ko yéene àggale xam na ni sëriñ bi yitteem yépp mooy nekkinu taalibe yi ci Madina Baye ak ci dëkk yi ko wër ñoom ay soxlay ndox courant ay tali ak yeneen yoo xam ne état moo leen ci mën a jàppale tàmbali nañ fii ci kaw Kaolack liggéeyu assainissement te madame la maire confirme leen liggéey baa ngi avancé bu baax a baax sëriñ bi néega ni daaw dañoo sàkk woon ñaan ci élection yi élection présidentielle yi ñu jàll ci ci jàmm seen ñaan nangu élection yi jeex jàmm rek mu ci réew mi ngeen ñaan jàmm dolli ci réew mi ndax wax nañu ne tey bis la boo xam ne bii luñ ci ñaan mu nangu ñuy sàkku ci yow nga ñaanal réew mi gën dal gën naat yàlla sàmm président Macky sàll aar ba mu mottali projet yi nga xam ne yi moom la tàmbali ci réew mi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina wa sallimu tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله